bu ngeen yóotu yàlla na ngeen ko sama doom ju baax jërë ngeen jëf yi moom da nga koy di mën naa jëndee rek da ngay takk si loolu yàlla bu ko tegee daa doon mën a bind ko de bind ko de ko tegee sama chéri bi rafet na ah yow ba jëf sama chéri la de musoo geesee la yow itam ah yow da ngaa rafet ah taxaw nii nag aktifnya aktif masya Allah maire bi daa bëri jëkkër sax moom moo nag mais man sa waa koñ waa Baye ñëpp xam na waaw man man yàgg naa ñëw seen kër ay 88 89 di fa déggee waaw waaw camarade de promotion monsieur John la prof John prof anglais donc bu ma la nee yàgg naa ñëw kër ga donc di ko gëm loolu yàgg la daal vraiment merci beaucoup jërëjëf yokk ba yëg ko sutura àddina ak àllaaxira lii la ñu gëm de loo wax la lool la waaw sunu rakk nga sunu doom nga loo wax loolu ñun lii lañ gëm lii lañ gëm lii daal la ñu gëm fu mu ne nii boo xoolee xoolal quartier Thiès yëpp a ngi fi quartier Thiès yëpp ngi fi ñëpp ba ba ay daral pël entre Thiès ba sorti Thiès ñëpp ngi fi merci beaucoup monsieur Dieye merci beaucoup démb ñëw naa fi tey dikkaat naa fi parce que man lii laa gëm démb sama yaay nga téye nii ci loxo di toog naa la sa chéri bi xuus maa ñàpp sama yaay la kii tamit ku baax la très accueillant vraiment kii vous êtes formidable vraiment yokku ba yokko sutura aduna ak àllaaxira ca kaw ca kanam rek yokku ba yokko ca kaw ca kanam kontaan naa trop je suis très ému kontaan trop dem fii laa yendu tey fii laa yendu parce que c'est un geste noble li lañ bëgg bi sey jey merci beaucoup li ngeen ko mëna fay rek moy doomu ties la ndaw la moom ci yoon ngeen jappale ko kenn waxatul loolu man mi fi yendu démb tay ma ñew yendu ah. man li la gëm lolu kessere rek ma la wax léegi bañ naa ba indil ma li sama koñ poste de santé ba jaxaw. waaw man nekk bu yokkoo ah, bu yokkoo ah, ñëpp yokk askan wi. voilà man li non lii la lii non man lii laa ba lii laa bëgg a. Ah. merci beaucoup loo xam ne askan wi d'abord gis nañu boppam balaa ñuy suñu kontaan parce que euh, ay politiciens moom mooy seen rôle te li ngeen di àndal comme seen président Macky loolu laa ko dégg mu wax ci année 2018 une année sociale démb maa ngi wax ak honorable député bu mag nekk assemblée nationale ci kilifa yi loolu la ma wax donc mu nekk ne buñ la ko waxul sax war ngaa xam ne social dafa nekk ci li mu war su ne nag dafay jaamu yàlla di nga am rek ngay jël jaamoo ci boo amee ñaar jël ci dërëm saraxe bi ci bees def ko asan loolu la ñu nekk ci def yàlla yàlla def jàmm yàlla na yàlla motal lépp yàlla taxaw leen aussi si li leen ñu leen remercier seen engagement en tout cas à nos côtés ñu nit ñu engagement sans faille comme quoi que seetuñu lii wala leen lii rek naka la ñuy def ba askan bi gisee di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñooy ànd ak yéen ci liggéey njiit yomb waaye euh, suma frère la moom xam ne yàgg nañu couvrir dans le dans tout le département dem nañu Fandène ci ay Augustin dem nañu Thiénaba te yàlla def ñu nekk fa lu mel ni citoyen d'honneur dem Tivaouane dem Xombol taset fu ne lépp rek lii nga fay fekk kon lii dëgg la waaw lii dëgg la bu doon yàlla na yàlla def jàmm ngeen ñaanal ñu bu baax a baax ñaanal ñu suñu doom ba sànni L'entendre de mes propos, on ne vous remerciera jamais euh, assez parce que ce bi rien def nii dans le solo. Euh, donc te bon lii euh, euh, c'est une première mais succès bi ñu ci gis impact bi ñu ci gis mooy daal lu askan bi soxla woon la donc je pense que c'est ça la chose la plus importante de wérgu yaram dafa nekk loo xamante ni dafa nekk préoccupation population rawatina sax bët bët tey ku gis même xale yu ndaw yi sax am na problème bët donc li li ñuy def euh, bokk ci ci promotion de la culture visuelle maman je pense que on va le pérenniser lu yem fii donc euh, après dinañ toogaat waxtaanaat xool yenn zone fii ci Thiès lañ koy yóbbu parce que tey kat bon xam nga booy doo démarrer benn mbir da nga koy def sa gox si sa waa koñ ba pare fi nga xamante ni liñ naan bay sa wayu tànk mais tey Thiès fépp euh, am nañ fa am nañ fa ay soppe am nañ fa ay sympathisants donc je pense que lii euh, ce n'est qu'un début du, du, du, commencement. On va le continuer. Donc, euh, relax un domaine parce que année sociale moom la ñu wax kenn waxul mois social. donc année bi yëpp di lépp xañ nañ si dinañ euh, continuer waat avec partenariat bi am. pour dem euh, pour si yeneen gox yi donc nag lii réussite bi aussi dama lëkkaloog sama sama benn benn xaritu médecin bon soog moom bëggul siiw parce que dafa am lu mu demee donc tey moom moom moom moo offrir presque quinze médecins spécialistes gratuitement ñom ñom tay ñom ñoom ñoo fi ñëw ah, en neurologie en gynécologie euh, euh, en cardiologie euh, donc pédiatrie donc il y a tout un secteur yoo xamante ni tey ñu ngi fi am am médecine di consulter donc lolu je pense que c'est une chose boo xamante te ni tey dama ko def grâce à des partenaires donc ku si si si ni Ousmane Diatta Awadas ak samay xaritu même médecins yoo xamante ni lii ñoo ma bëgg bëgg parce que

devant la presse, la préoccupation du mouvement, c'est être au chevet des populations les plus démunies. Donc nous, nous, parce que nous, nous pour apporter une pierre à l'éducation d'une caisse prospère et rayonnante. Donc vraiment, je profite de cette occasion-là pour remercier euh, sama yaay sama xarit di responsable politique de la l'APR à Thiès di fi def liggéey bu am solo maire Mati Ndiaye ici euh, à mes côtés donc it ñu ngi koy remercier ci disponibilité bi bi bi tax mu ñëw fii àndoon ñun ci àndoon ñun ci liggéey bi di remercier encore tous les responsables et leaders de la l'APR tous les responsables leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu ñëpp teew nañ fi aussi su aussi soutenir nañ ma si ba bés bi mën a am am mën a am réussite donc donc donc je pense que euh, euh, euh, aussi je je vais profiter de cette occasion là solennel pour lancer un appel aux étudiants euh, revenir au calme donc euh, euh, euh, vraiment nous tous nous sommes des Sénégalais mais aussi nous sommes donc vraiment le président Macky Sall président donc on a soutenu ñoom suutee nañ responsabilité yi te xam nañ fan lu mbir mi soo sooxee donc dañ si jël jéego yu ni kiiwee mais daal li may ñaax mooy étudiants yi nañu xam ni kat réew ñu ñoo ko moom donc bu ñu yàqee université bi seen bopp lañu yàqal bu taalee bus seen bopp lañu bus donc daal ñu ngi leen di woo daal dans le calme soo mes frères samay lépp leen maa ngi leen di ñaan kat ñu dal xam xam ni kat lii gouvernement bi ni si jël ay ma ma matuwaay yu am solo ba lii am fii dootul am lii di am nii dootul amati donc daal je pense aussi maa ngi profité ci occasion bi aussi di nuyu Euh, samay euh, naataako euh, la cadre le cadre dynamique doomu Thiès ñi nga xamante ne ni tey ñoo ngi yëngatu fii ci cees donc di des mouvements association de soutien ki si mel ni sama frère Babacar Fall démb ñëw na ak le frère Modou Gningue empêchement moom moo tax mais aussi du feddale sëm ma coloré ak tey un cadre politique tey bu nekk fii Thiès ci le docteur Yves donc il dit base de fii ci Thiès di liggéey bu am solo dans le social donc te gox bi mu hôpital régional bi mu nekk mu fay def liggéey bu am solo donc moom tey man ak moom ñu ngi waaj a nouer un partenariat d'alliance pour que ñu mën a àndandoo li liggéey. je remercie aussi eh, le PCA du PAMECAS Moustapha Diaw donc moom depuis hier ba léegi donc il a arrêté toutes ses, activités pour accompagner M. Loll. je pense que Thiès Mouli n'est pas là pour booloo pour que Thiès mën avance. jëm kanam avancer pour que le si euh, président de la République pour que réussir sa mission du plan Sénégal émergent je vous remercie Faye bokk ci njabootu Dabay te yaa ngi teew ci consultation gratuite du président Abdoulaye Dieng si bu jonn joxe ñu bëgg nga wax ni lan moo la lëkkale ak seen Abdoulaye. waaw ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ah, di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi ki nga xamante ni bi tey mooy deretu Serigne Touba teew fi muy Serigne Ibrahima di set ci Serigne Maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawal. mu ñëw fii ànd man ñu ñëw seeti sëriñ Abdoulaye Dieye mi nga xamante ne bii ah ku ko xam xam ko ci social xam ko ci def lu baax ah, di jëf itam te du ci boole dara ci ay wax ah yàlla dogal itam muy sama lépp bokk itam ci famille Dabaye ah famille bi mbokk bokk it mu njabootu suñ moon ja Dabaye itam ñu bàyyi ko xel lool yàlla dogal itam wax dëgg yàlla ah, ñun moom. képp ku nekk ci lu mel nii rek ah ñun il faut ñu ñew assister an ko yow ndax ku ne xam ne ne jamono ji wéridi yi bari na euh, te doomu aadama yi wéridi nañu te amuñu luñu fajo kon nak dem ba wax dëgg yalla képp ku nekk ess ak fu mëna a nekk yëg dara sa yaram yaa fi ñew te bo fi ñëwee itam wax dëgg yalla dañu la sét ah buñu génnee ci yow jangoro itam jox la ay garab kon nag loolu kii ko def mu sëriñ Abdoulaye Dieye mii kon tamit loolu defal na ko waa Thiès yëpp defal na ko sëriñ bi itam defal na ko président de la république kon nag lii nag lu am solo la ah doomu aadama nag su fekkente ni day def lu baax di ko jëmale ci yow it te soxlul ci yow dara lu dul askat kon nag wax dëgg yàlla carte boobu itam bu ko soxlaa ceeb it wax yàlla war nga ko jël mën a jël tamit jox ko kon nag wax dëgg yàlla si Abdoulahi yow wàccu nga ak waa Thiès ndax wax yàlla lu fi xew muy ay jàng yaa ngi jël sa alal di ko ci def bu dee conférence yi yaa ngi jël sa alal di ko ci def social yi sa loxo toujours mi ngi ci rawatina itam jëf yi nga jëf tey jii ak démb moi je peux témoigner euh, de son engagement. Euh, c'est pas quelqu'un qui assume une prérogative de puissance publique. Il n'est pas ministre, il n'est pas directeur général. Mhm. Donc c'est par ses moyens propres qu'il a travaillé à créer les conditions politiques mhm. euh, d'une récupération de la zone Est. Mhm. il a ses actions s'étendent même au niveau de la commune Ouest. Politique contexte il faut travailler aujourd'hui c'est seulement des hommes euh, qui sont virés de tout contentieux politiques. parce que ce c'est des gens qui sont de dignité Idrissa il a eu à assumer des prérogatives tout il a été premier ministre mmh. les investissements qu'il a fait à Thiès c'est parce qu'il était à un niveau de responsabilité Nous, c'est ni moyen la ñuy mmh. et sur ce on doit interpeller le président de la République. Ces gens-là on travaille à la ressource électorale. élection. Pour la première fois, moi j'ai toujours dit que la ville, si ces gens-là n'étaient pas là, veulent se creuser au niveau de la ville et quel que soit l'apport du département c'est parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire au niveau de la ville que nous gagnons. autre chose la ville a plus danger que le département c'est au niveau de la ville qu'il y a une menace Taïti le plus sérieux candidat du président de la République il est de Thiès donc le président doit être beaucoup plus regardant à ce que cette séance là on fait à Thiès au moins pour les mettre dans des conditions yo on a on a on a travaillé à la fragiliser au législatif mais les acquis là il faut les consolider comment les consolider c'est des gens qui ont yor nekk des chefs d'entreprise yor ay moyens du ko def ci bir. mais indi yaakaar on doit travailler à consolider leur position en tout cas c'est cet appel là cet invite là voilà vous êtes vous êtes vous êtes ministre Omar. la loolu la sori parce que li mu wax nii gënu yow gënu la ko xam douze communes bi ci département bi trois communes yi Thiès boo xam nga wante lii doomu baayam ji wax te mbokk moom benn deret mhm. te ku ne bëgg nga naw la mhm. dafa daf day loo xam ni man dama cee xam dara damaa nekk ci fayu dama cee xam dara gënul laa dëkk Thiès xam naa la yow itam Maguette Diop wax na ma lu baax ñëw naa ba sa kër gis naa sa yaay kon bu ngeen jàppalantee rek am doole te gis nga xale bi li mu def nii dootuma xale ku liggéey ba retraité te 60 ans bokk leen waaye bi mu ñëwee dafa am fulay xam mooy kan xam mooy kan mooy bañ a ñëw di rivaliser ak nit ñi dafa topp seen ginnaaw bu wootee docteur Ndiaye day jóg bu ndey dikka Ndiaye moo njëkk parce que man fi ñu dem maa sama kilifa bawuma sama man man kenn ñu foo yàlla wéy Aliou Ngouille Sall ci dëkk bi maa ngi fi am naa fi plus de naa 27 ans ci lycée Malick kon xam naa dëkk bi mais lii muy liggéey bu a ñëpp liggéeyee yow mii nga di ko liggéey mooy yéen au moins bi ngeen wootee gis naa leader yëpp latuf mais Babacar Fall la ànd ama nu mu doon defee du ñeme ñëw waaye nit ñi moom ñeme nañ leen donc ay xale ngeen waaye yal na ni yàlla lafal cat yal na leen yàlla lafal cat en tout cas ñun daal ay mag la waaye leen jiitu seen ginnaaw la ñuy rek bu ñu gisee xaaxaam jéem a dindi incha allah jërë ngeen jëf dëgg yàlla maa ngi leen nuyu kii yàlla dafa def te ñu bari xamuñu sama frère la balaa may ñëw di liggéey kii ma appelé ne ma li nga def ci politique yàgg na dama la daan seetaan moom wax na ma ko ma bële ne ma président dafa ne ma jóg jàppale ko Thiès. ce qui me lie lui direct moo ñu boole son frère et le mari de ma sœur mosuma ko wane mosuma ko wax ce qui me lie à lui c'est beaucoup dafa fekk ne rek yàlla tuddul woon peut-être ma ànd ak moom ci benn mouvement yàlla def nag ma ànd ak kii kii aussi li ma ànd ak moom rëccuwuma ko ça je dis très sincèrement et très honnêtement parce que nit boo ànd ak moom bu dee def nga ay pas de géant war nga ko xam bu dee dellu nga gannaaw war ko xam mais quoi qu'on puisse dire le mouvement Siggi na ay Thiès à travers Thiès au-delà de Thiès ñëpp xam nañ ne se mouvement la li mu def fii kenn def ko loolu vraiment synergie la nag le groupe surtout moom mu ne ko leadership bi vraiment compréhension bi entente bi ànd bu rafet ko parce que jiital yi ay di dafa yombul nit dañoo bari ay jikko les caractères diffèrent da ngay ñëw si vraiment

doole moo force bi il faut ñu booloo si la ñu jógee jël suñu bâton de pèlerin di ko dox di ko dox mais Ablaye Dieye Babacar Fall Mamadou Ñing keneen keneen keneen ñun ñëpp aujourd'hui bu ñuy jóg dañuy jógandoo dañuy agirandoo dañuy dóorandoo et je pense que loolu buñ ko demee ba élection yi la victoire nous sera assurée à Thiès donc moi je pense que dynamique boobu daal nañ ci continuer et incha allah rabbi et li ñu bëgg Thiès le défi sera relevé défi présidentiel yi défi bi nga xam ne aussi moo bu solo encore pour Thiès mooy ñu jël dëkk bi. Mhm. jël vie J'ai mhm. parce que dëkk bi les communes sont mal gérées il faut que les Thiessois eux-mêmes prennent leurs responsabilités à main leur destin à main ce que je voulais lancer. C'est un là. Ah, ouais ok. Ok. Je suis en partenariat avec, l'organisation mais, mais ça, c'est une dynamique nouvelle dans la politique. Oui. oui, Non, c'est ça, mais, même si c'est une approche novatrice, c'est extrêmement important. En vérité, en vérité c'est cette approche-là qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que ceux qui sont acteurs politiques, les ONG, que les gens se mettent ensemble pour dire quoi Nous voulons améliorer le vécu des populations. Mhm. Parce qu'en vérité, la politique ne sert mhm. qu'à ça. Si nous ne sommes pas capables, en tant que fils de pièces, en tant que fils de ce pays, d'impacter sur le vécu des populations, mhm. d'essayer d'améliorer le vécu des populations, notre action ne servirait à rien. Il est de la responsabilité du président, en tant qu'élu, de s'occuper du Sénégal et des Sénégalais, partout. Mais nous tous le savons les moyens du Sénégal sont limités. C'est un pays en développement, avec des ressources très limitées. Lui-même, en tant que premier responsable de ce pays, chef de l'exécutif, n'a peut-être pas les moyens d'agir partout. Mais il a des relais. Nous sommes tous Sénégalais et nous devons tous nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Ablaye dans son côté, euh, Monsieur de son côté, moi-même de mon côté, vous du côté de, de l'observateur, que chacun s'y mette. Si nous le faisons, dans la même dynamique, avec le même engagement, avec la détermination, nous pouvons changer ce pays. Et c'est cette mentalité que le président veut inculquer. Que chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, puisse s'impliquer, puisse travailler, puisse être lui-même et se sentir lui-même président du Sénégal. Investir de la responsabilité de développer le Sénégal. Je suis avec mon frère, avec ce bonheur, parce que avant même que l'on n'ait peut-être cette proximité, j'ai entendu ce qu'il faisait, l'implication qu'il a, et l'impact qu'il a réel sur les populations. C'est ça qui est le plus important. On peut tenir de beaux discours sans avoir un impact réel. Lui, il a un impact réel dans sa zone. en contact avec ses populations, les aidants. Le social, c'est vrai, c'est peut-être donner des fois 1000 francs ou 2000 à quelqu'un qui en a besoin, mais c'est aussi transformer le vécu en aidant, en améliorant la santé, transformer dans la formation pour que les population puisse avoir des activités génératrices de revenus. Et ne se mettre plus chaque jour devant ta porte pour te réclamer de l'argent. Mais lui, il est dans cela. Avant de l'approcher, j'ai connu de ses actions. C'est pourquoi je lui apporte moi-même mon soutien, mais aussi ma fraternité, parce qu'on a travaillé ensemble. Je lui ai dit, j'ai parlé du président de lui, sans même le connaître. Le connaître effectivement je le dis devant la presse, sans même me connaître, vraiment. parce que j'ai tout simplement entendu ce qu'il a fait, j'ai suivi. je ne raconterai pas n'importe quoi aussi au président. Hein. J'ai suivi, j'ai regardé, j'ai un peu enquêté. Je sais qu'il a un impact, comme je l'ai dit non seulement sur les populations, mais il peut avoir un impact électoral. Mais au-delà de cela, de cette volonté de réélire le président dès le premier tour, le 24 février 2019, Inch'Allah, ça, nous sommes presque certains que nous, allons le faire. Si nous continuons dans cette dynamique, unitaire, dans cette dynamique de fraternité. Mais au-delà, nous avons, comme l'a évoqué notre frère Mandoumbe, la responsabilité de transformer cette ville, d'améliorer cette ville de et nous pouvons le faire. Pour dans la main, et je sais qu'il est dans cette dynamique. Je sais combien il est humble, combien il est disponible vis-à-vis de tout le monde. Avec Baba Karpal, avec Ning. Mais il faut élargir, il faut mettre tout le monde tout le monde, il faut fédérer. Ablaï, va dans cette dynamique. Merci, merci tu peux fédérer, aide à fédérer. Je suis à tes côtés, je te soutiens, tu es un frère. Va dans cette dynamique. Hein? Monsieur le ministre, un résumé à Wolof euh, par rapport à votre impression. Ah, d'abord, je veux dire que euh, santé yàlla et puis content trop que ça, mon frère euh, Ablay, tu li muy def li muy def moom nag mooy ni euh, Thiès ñun fi lañ dëkk juddoo fi yaroo fi màggee fi lu ñu am euh, fii la ñu fekk biir Thiès euh, xam nañu cees ni muy fonctionner gis nga nit ñi li ñu am li ñu bëgg rek mooy ku leen yëg nekk ci ñoom jàppale leen dimbale leen taxawu leen nekk ci seeni soxla moom Ablaye mi ngi ci dama wax ni avant même ma koy miin dama yëg dégg xam li muy def gëstu koy tuuti xam nga li euh, ñuy wax bala ngay jox nit bis bu nekk jën jàngal ko nappiin dafa gën ndax dootu la sonal ci ñaan jën te dina mën a lijjanti boppam lijjanti sax ñeneen mu ngi ci loolu ci fexe ba aider nit ñi ci euh, ay ay formation aider nit ñi ci yenn yi fexe ba nit ñi prouver lu ñu mën a yoreel seen bopp mais xam nga lii dajale nit ñi fii euh, yendal leen nekk ci seen i soxla bàyyi say soxla nekk ci seen i soxla xol moo koy mën yéene koy mën dafa wuute digënté wax ak jëf olof yi dañuy wax yi wax kopp jëf fay nako ci loolu la nekk c'est la même dynamique bi président nekk waxul doo ko dégg muy tesante doo ko dégg muy tontonte mi ngi ci jëf parce que réew mi dafa toll ci foo xam ni jëf la soxla nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et bu ñu jëful top wax ak teesante ak yu kenn xamul dañuy tardel suñu bop tardel rew mi suñu dom ak suñu seut dinañu jéppi lu nit mëna wax nañu sax ci jëf ñu lu ñu nit mëna a nañ sax ci jëf ablay ci loolu la nek dama ko wax euh da nga oyof yaatal kenn ku nek mën nga wax ak mom demal ci loolu boo woowal ñëpp dajaleel demal ci ñepp xëccal ñepp man de maa ngi ak yow ci loolu euh, tàllal la loxo ni ñu jàppante te xam na ne lu sincère la bul bul boddi kenn ku la xasit bul deglu demal ci mom yow sa responsabilité c'est ta responsabilité c'est ta responsabilité nga dem ci nit ñi wax ak ñom xëcc leen parce que yow ko woo dina ko dina la wuyu parce que ni nga mel ya ko ji nit ñi ya ko ji population yi sérieusement nous nous souhaitons que tu sois ce rassembleur là nous sommes avec toi et nous sommes dans, cette dynamique pour te soutenir avec toute la fraternité mon frère Thiès ay jeunes taxaw yore sen mouvement mais également yore sen xam-xam ne dañuy delluwaat jël seen comme koom séddoo ko askan wi ànd ci ak partenaire stratégique nga xam ne mooy LOADES ak i ni mel yeen en tant que ñi nga xam ne fay nek ci bir nguur gi li ni mel lan mo ci sen xalat mais loolu lay wax léegi mon frère ma ne ko lii am ni dynamique bu bess la xam nga ñëw euh, des acteurs de la société euh, civile. mais ay hommes d'affaires ay entrepreneurs ay un peu acteurs politiques ànd ci benn dynamique kenn musu ko gis kenn musu ko gis donc bi am Thiès dynamique bu espoir la lii mu indi nii yaakaar naa exemple bu ñëpp war a topp nag mooy ni kii nekk ci ONG te mu wóor ni Thiès waa la Thiès ko ñëw Euh, kenn ki nekk ci acteur euh, euh, de la société civile kenn ki nekk chef d'entreprise xam nga am na kenn koo xam ni doo ko woo ci ay caaxaan da dul sax tal moom am na nu mu doon mel koy parce que yeneen leen di mais da ngay nekk Nous ci nekk ci li soxal askan wi ñi nga nous déjà cahier de charge taxawu askan wi et ça c'est une dynamique salutaire si je pense c'est une dynamique à encourager et à élargir je pense que ni lii def nii lu nous et je pense que les titres des journaux devraient insister davantage sur ça merci beaucoup tout d'abord, euh, je remercie le ministre de m'avoir euh, rehaussé de sa présence. Donc, cette activité bi Donc, euh, il a laissé toutes ses préoccupations mais vraiment l'humilité, bi nga je ni un homme je fii ci Thiès donc je pense que nous sommes spontanés. nous sommes bu spontané la eh, koy ñor parce que récemment rek lancé benn mouvement ensemble donc je pense que nous sommes ensemble pour la réaction du président de la République donc nous sommes euh, boobu mu ma bëgg Je jox c'est-à-dire le rôle fédérateur donc moom sama sama mag la sama sama grand frère la donc lepp lu mu lu mu bëgg si man rek dinaa ko def te loolu je pense que dinaa si ànd ak moom pour que ensemble on fédère les forces qu'on crée un cadre unitaire l'union de toutes les forces vives yi nga xamante ni ñu ngi Thiès pour que ñu mën a jox Thiès ndam parce que jox Thiès ndam mooy jox euh, président Macky Sall majorité parce que il est en train de réaliser beaucoup de projets à Thiès. Donc de faire des choses extraordinaires. Donc gis nañ ko bu ñuy lim tey li def Thiès du fi mais loolu ba léegi mënagul yegg si si askan wi askan bi mënuñu ko xam parce que amagul des personnes sûres des personnes de valeur de de valeur yoo xamante ni ñoo war porter loolu donc le ministre m'a pense que nous la porte bi nga président toute sa vision ak en action donc euh, monsieur le ministre vraiment je vous remercie de votre euh, détermination vraiment. Euh, taxaw ngir jàppale président Macky Sall Thiès donc it sa humilité ak sa sa ak sa ouverture envers tout le monde man loolu dama koy saluer parce que man it loolu laay dox bu ma jógee ba léegi dama xam ne kat bu ma ñëw fekk fii ñoo xamante ni ñoo balisé terrain bi donc boo ñëwee da ngay topp si seen gannaaw di waxtaan ak ñoom di parce que ndawkat ba boo ñëwee si ay mag da nga leen di cëral da nga leen di jox cër mais tey fii tout les euh, euh, tous les leaders donc ak benn donc à chaque fois ñu ñu ngi prêter attention ci man que nous def. te que nous day def yëpp c'est l'impact envers la population. lu nga xamanteni dafa wara a population bi les gens des fois ils parlent de poste de responsable non ñun suñu poste bi bi ñu gëna bëgg moy Thiès am ndam. Thiès de la kanam la population am un bien-être. donc am des préoccupations euh, vraiment c'est des préoccupations majeures essentielles dinañ ci taxaw. donc loolu mooy euh, sloga bi nga xamante ni ñun loolu la ñuy dox te tey comme du mu ko ko ko ko waxee ce qui est important c' est la fédération man loolu maa si dox euh, suba ak ngoon ak guddee bëccëg moom gën na ma si gën na si encouragé loolu dinaa ko ko nangu. def ko pour que ñu mëna ko bolé force yépp pour que Thiès mëna am ndam pour que ñu mëna a réélire le président Macky Sall au premier tour. en passant aussi je remercie vraiment li li nga wax tay je pense que. Euh, la politique policière dafa jeex et ñu ngi jaxasoo avec ay ONG ay euh, société civile mm-hmm. pour ñu mëna le lëkkaloo boole suñu doole pour mën ko jëmbali si askan bi moo tax je je remercie vraiment le président Diatta nekk en partenariat ak man avec l'ONG ODAS ñëw ñu booloo organiser ces journées euh, médicales médical en ophtalmologie mais aussi en médecine générale mais médecine générale il euh, am na la euh, euh, pédiatrie gynécologie l'urologie. donc le PREC, dans le cadre vraiment d'accompagner la population de Thiès je pense que li le président bëgg donc bu demee ba ni tey sociale donc nous aussi nous ci def partition te aussi war nañ vulgariser dans tout Thiès parce que bëgg-bëgg président dañ ko war a defee jëf parce parce que président boolewul dara ak ay wax li muy def yëpp il fait des actions qui sont qui vraiment réelles et concrètes donc tey Thiès ku bëggul gis gis eh, li fi lu fi président def c'est bon nga muur say bët mais tant yaa ngi xool di nga gis lu leen nañ donc daal ñun tey def politique politicienne wala ñu bëgg dara non non li ñu bëgg daal mooy suñu askan ñu nekk suñu waa Thiès mën gis seen bopp parce que tey Thiès am na ay jafe problème de l'emploi mais le président gi si def ay jéego yu am solo parce que l'avenir de ce pays là c'est les jeunes c'est les jeunes il ñu trouver des canevas, des voies moyens, vraiment pour accompagner les, les, les, jeunes à être formés, aussi à trouver de l'emploi. Donc, euh, le, le, le, euh, euh, état banque si def ay ay jéego ñun aussi ñuy ñëw pour vraiment dooleel leen mais en retour aussi mu mën a ñëwaat feeñ ci askan bi rek mom solo donc vraiment monsieur le ministre je vous remercie. yaakaar ne bu ñu won woon fi soxla demba visé nañ 1000 1000 personnes tay nit ñaa ngi di xaar ba légui te xamna duñ fi mëna a wa waaw non loolu je pense que man ak jaataay. ñu ci waxtaan dinañ xool ba ban euh, moyen lañuy def gën a nuyewaat le partenariat pour accompagner ko pour soutenir parce que li muy def askan wi ñoo ko soxla parce que là ça fait euh, partie de la promotion de l'acuité visuelle. Et, ça, c'est très important. L'accès au, au, au, au, matériel médical est cher. Donc, l'Union Européenne apporte des soutien pour que l'on puisse démarrer à ce Donc, l'on a surtout avec tout ce tous les partenaires, notamment étatiques, ñu xool naka naka la ñuy ji ji ji ji ma taxawlee loolu pour mën a am doole si seen domaine. Je salue monsieur le directeur avec euh, monsieur le ministre que j'ai trouvé j'ai l'honneur de trouver ici Ousmane Diata de la société civile. Voilà, en tout cas pour vous féliciter. Vraiment, c'est le qui ngeen en a besoin. Et euh, monsieur le ministre aussi, c'est cette occasion que j'ai pour le rencontrer, bien que je Mais également pour euh, notre frère, monsieur le ministre, hmm, Abdoulaye pour tout ce qu'il fait j'ai pris l'engagement que le ici ici que je viens lui dire félicitations et mes encouragements. Ça, c'était avant même son engagement politique. C'est quelqu'un qui est très discret, qui très efficace et qui mène des activités très nobles. Donc, euh, nous, on est dans la société civile depuis 20 ans ici à Thiès. Voilà, donc consultation médicale, on connaît l'importance pour l'avoir fait chaque année pendant 20 ans. Voilà, donc on avait, on était à côté des coûts sociaux les plus défavorisés. Je le parrain des enfants infectés par le VIH. Ça, c'est une occasion que je lance tout le temps. Voilà, donc pour dire que moi, c'est ça qui me mobilise. Parce qu'il y a des choses qui sont concrètes, qui sont réelles. les gens n'ont pas de temps par rapport à la souffrance des gens de perdre du temps. Leur Donc, ils pouvaient organiser un meeting hein, où ils seraient là en vue bon mais là c'est des milliers de personnes qui en bénéficient voilà donc j'ai un ami Diawara qui a entendu voilà il m'a dit loo <laughs> jàpp dans une manifestation islamique voilà mais moi en tout cas c'est pour vous dire monsieur le ministre qui est voilà le témoin de ça parce que organisation bi monde qui a qui, c'est lui qui avait trouvé le nom Djab xale yi. <laughs> jàmmi donc c'est un 96 97. Il y avait même maintenant <laughs> des gens qui sont un peu partout voilà mais c'est pour dire que réal monsieur le ministre en un mot Abdoulaye, c'est quelqu'un à encourager, c'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un à féliciter. également des de je sais que je ngeen en et pour terminer je suis mon grand père je vois Mon <laughs> voilà en tout cas félicitations. merci monsieur le Merci. ñom Fama ay yi ci mc pes lañ bokon ja jamono Abdou Diouf la bu njëgee mi ni dom pes ci côté yaay ba ko da papa couloir yi école Clémenceau bi muy yeen nek ci mairie kess bi dafa am luma ma ci yow moy lan xéne bu ngay jëlé bayal jang jàngi Clémenceau nekk xale am nga loolu ni sa ci mairie kess bi tay bi motax volonté té soo jëlé affaire auto de ko ci biir école Clémenceau dina fa def action sociale boo xam la santé avant man góor rek laa mën a defanteel ak ko am ambition ak ko am bëgg-bëgg ma gis fii toogaay bi Edouard Latouf gis ñoom si seen yi ñoo leen damay jàpp jàpp moo baax ku ma àndal ànd naa ku ma àndal ànd maa man Macky Sall la gëm nga ñëw fekk ma ci ambition boobu nekk nga bëgg càng man ànd càng man ba ma la xamee ba tey Ablaye kenn mu doon wàññi benn ñaar ñett danga naa wàññi damay wàññi wàññi action sociale kenn gisuloo ko fii ci biir Thiès la ñuy yor ndax Macky Sall ba mu leen yebal dañuy leen dem leen ñu jàpp ne ma Thiès Thiès la fi nekk ay militants Thiès la fi nekk ay électeurs nga fi nekk militant ay électeurs ça fait deux yow ay électeurs nga am six mois am ñun la sas la fii sas sa morom fee sas la fee nga ñëw remporté lépp dundooñu naxooñu moomooñu suñu tëjee suñuy kër nekk ay mag jëm na troisième âge teg suñu digg dugg ci bureau de vote yi sensibiliser daf fekk yaa neex a waxal heure bu ne la électeur lii sa alal la ko jàpp enveloppe bi doo ko xool soo demoon nga def sa enveloppe def ko cachet ku xot nga xam premier acte bi nga def kër maamu kii la maa dem ay sama jàng maam ñu def jeunes en mer kuy jàppale jàppale ab élève ndax jàng ci élève élève soo ko jàppalee jàppale nga àddina bépp jeunes en mer ba nga ñëw bëgg fa ordinateur cinq cent mille francs dafa table baa dafa ne salle de conférence

sa bay mo yoro marché caisse bi sa yay nek ni combattant ak ñoom Fama Aïdara mii dans la région de Thiès kon su ñuy jàppale Macky Sall dina may jàppale samay morop ak samay nawle and su dëggoo rek mu neex and su dëggoo rek mu neex heure bi dem ña Dakar moy yow Abdoulaye Gueye yi ñëpp wax tàccu ku contre dama lay xol ko comme ko solo ko dama la taccu parce que li la final fii danaa la eh yow de mooy wax sama dëgër waxo dara ci moom Macky Sall bëggul ko ko yakal ay électeur mak sal bu ko yak ay militant mak sal yakul bu ko yak ni bëgg a ñëw nga def ak projet dëkk bii Thiès danoo sonn gëm Macky Sall yow Abdoulaye Dièye yow soo ñëwoon bayal bi tax sa étage wa bayal am ay néegu ñax am ay baraat nga bu jappal day bañ te la mak sal jox ndiw woo ko militaire électeurs ko indi jàppale bi rek ay catégorie la am na ñoo xam maa fi dëkk man mako mako wax man do ñëw bu ci ko tëj def fa la ren neex militant am na leen ci xol pourcentage bu ne pourcentage bu ne ñàkk ñoom la dama ne xamal ñu toog fii ñëpp ay responsable politique yi li jëm yàgg ka ton la ma xam jëm ca Dakar yàlla dëkkul Dakar yàlla fépp la yàlla ma xam ne bi nga amee seen fële bopp nag fippu ñu leen yéen yem leen Dakar ñu dem Thiès am na lu fa mën élection yi jub si du leen na porte à porte la ni opposition bi def sol ba sol seen jacket ci porte à porte ni ngi soxlaatuñ heure da nga leen di à l'avance kon sa samedi dimanche bu ko bàyyi responsable dañuy responsable de Pikine soxlawuñu ne ndax man ne ah soo ma woowee tous les jours ah, yi toog laa jàmbaar lañu amuñ doo ma taw dangoon seen Facebook yi bàyyiwuñu ko fu ne ñu ngi woote ndax suñu mënoon dem duñu man dëkk wala bu ñu ñëwee ñaata ka table ne au niveau national au niveau national amul nan bay comité de soutien yi juridiction comité de soutien amul carte eh, à eh, part eh, appel am appel à carte à part benn bokk yaakaar am carte à part carte bi do mo la suñu mënoon doon du leen gël ci c'est bu carte lay ñaamaas yàlla bi nga amé xel da nga leen nekkay da bay ñotti ban yaa ngi ñotti te ñotti bi mom tant que yaa ngi koy xëcc wala laaj la fan tay mom kula laa ñu defante ak moom duñu laa serviable Ndakaar dafa ne yalla fa la dekk Macky sa na gess gess gisom ni tërëm yéen ya ma ñoom ra xafa ñu ma ne am ko moom ñoo ma waxal teel ablay Dieye ñu tok déera sodo na ak ay moromam man ay moromam dama lay apprécier mais luma jox naaf ca clair luma jox sama yoon nawu ca kii laaj action ndax moom laa nekkal ñeneen ñi xam naa ni bokku na bok sen union la fait la force ñi ngi def an ablay Dieye kenn moom man li dama gën sama néeg ma ngi jëmee woma ma gis ay saako ci bi tay fofu mané mom saako ceeb nak maa di jot baagal naan ko ah baagal ba li muy bo yoon wi dem yow yow xoolal sama dollar xoolal sama ur da ma respecté am foo ma teg gis nga ni ma respecté am foo ma teg waaw am foo ma tek ku la bëgg mu bëgg ko defante ba terus ak moom yàlla yàlla fa jàmm sas terus ma tur kenn il est en train de faire un bon travail avec les autres opposants def leen ni ñu mën a toog ci biir kër di xool jaxaw a kees ku di kees am problème nga xool dëgg problème nga ne kees gii gën leen liggéey Macky Sall gëmul ay nit kàttam yi la gëm ay waay jàppale leen ko ci lii passé woon bu mu ngi daal di Ablaye Dieye yaag say naataangoo nan dugg portable pot ci kër yi woon yi ñi yàlla na yàlla dafa jàmm dafa ñu xéewal si rebu léegi nag li nga commencé continué ko rek ku la bëgg na nee na nekkal ci lii ku la bañ ngay bàyyi ci bàyyi day da daam ana sa femme yi ak sande yi ndiap la au niveau national ko fa ni defante ak moom wax na ko dem te fa wuy caaxaan ci de ndax ñun yi am te ji yaay ñu poussé ci ñu dem wo say càmmiñ so dem sa dem bopp dem du neex li ñëw fait la force yàlla yàlla dafa jàmm lii ñëwal jógeen ma maa mbolo mi ginaaw bima sante yalla ma maa ngi jënd ci sayyidina muhammad Abdoulaye ñu ngi waa doomu Thiès le président ñu euh, ngi qui sa aussi notre frère Édouard Latouf à ñu mu àndal ñëpp suñ fi c'est pour magnifier ton travail ndax nag liñ naan doo pot si sot une alliance pour la république le la ñu dund gis fi nga féete président Macky si région bu metti bii muy Thiès mm. tey bi may jóg dama l'alliance pour la république ànd ak suñuy yaay mati ñaax xarit ju filaaxa suñu mag Marème Diop Silla ak Fama Aydara ak suñuy rakk Fatou Touré bu soxna Cheikh Ndigal Ngok mooy fiefu Baye Fall yi Fatma Mbaye ngi noonu kër Mama Laaji Astou Ndoye les villages rattachés kër Seydi Ndoye Binta Fall ak Maguette Kobar ñi responsable femme Abdou Mbow yi lañu Rama Dem c'est une de l'Alliance pour ñi ngi ànd ak euh, jeef jee moom it euh, sa mbokk Baye Fall doo doon sa touche Chérif Assane dëkk kaw Sara Fall ànd ak euh, Maguette Diop bu nekk zone nord am satu fa am satu Diop ànd ak qui est membre fondateur de l'Alliance pour la République ainsi que Sofiété Maïmouna Sène donc euh, euh, qui est membre aussi de l'Alliance pour la République Andak Seyne Seynabou qui est membre de l'Alliance Alliance pour la République Nous avons fait suñuy xarit na muy Marème Diop wax ak nous ñu xam ni seen combat est combat benn comme li ma ko tout à l'heure nañu mouvement de ndax ñun ak ñoom benn lañu ndax tamit ñoom dara wunduw leen lu jóg jàppale son excellence le président de la République sans condition. man je peux l'attester xam naa li ci xew seen alal ak seen mën a mën seen doole. c'était pour rappeler pour la petite histoire bi ñuy def campagne législative bi passé laata le parti départ yaa njëkk a démarrer say moyens fii. loolu am de ma toog ma ko fekk ma ko alliance pour la république nag euh, sawar lool ci yow jéey. Mm. les femmes de l'alliance pour la république. parce que jotee. manoon nga ni am nañuy ndombay tànk ak leneen mais dangay ñëw sa doole. yabal koo am nga jàppale femme Thiès yëpp mënoon nga ne sa mouvement doo nga yabal mais yi xam nga ni jigéen ñi am nañ fi ñii ñëpp ñu ci toog pratiquement amuñu ci ndombay tànk te alliance pour la république la ñu dund. am jàppuñu ci lenn tabaski jotee suy koor lu mu mën ci doon yaa ci gën si ñun. oui kooku moo xam-xam ni je ne parle à la légère dara feesul samay bët. ndax moi je du directoire national de l' pour la république. te sama wax ji may wax ça engage le le président euh, le ministre Augustin Tine. Hmm. engagé Abdou Mbow engagé Sira Dia ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw waaw ba nga yar nga ñu won téggin nga ñu won ak téranga ak sutura rawatina jigéen ñi toog. donc moo taxoon tey bi ñu nee tey da nga am consultation médicale ñu dañoo son sax ay réunion bobu ba léegi lañu nekk parce que dañuy euh, wàcc soirée de gala bu mag bo xam Euh, euh, fësal liggéeyu président de la République c'est pas soirée pour soirée dañuy def soirée boo xam ne communication bi mooy kii pour fësal les réalisations de son excellence le président de la République donc bi ñu koy def nag yàlla damay bi ñuy wootee Thiès woote dama leen def ñu woo bàyyi mouvement de soutien ci la ñu woo seeni femmes muy Babacar Fall ji yow ji ñeneen ak ñeneen ñëpp ak Mamadou Dieng dama ko mënul woon jot mais euh, Pascal femme yëpp femme leader yi nekk si mouvement de soutien ñëw nañu niveau national ñu waxtaan waxtaanu Thiès donc Abdoulaye ñun mënuñu ñu gërëm la ak sant la ndax xam ni yow yaa ngi muy noor yaa ngi ci muy nawet yaa ngi ci xam nañu fi nga féete Thiès ndax bi nga duggee cees nag différence am na Thiès. ba tey bi nga bi ngeen duggee Thiès mouvement de soutien différence am na Thiès ndax wéetoon nañu lool Thiès ngeen ñëw dooleel ñu jàppale ñu te lépp c'est à l'action dans l'escarcelle du président de la lool loolu laa amoon tey ma ne naa ñëw ñu ñëw sant si la sargal la aussi sa bés bi donc euh, ma ne woon naa ànd ak les femmes de l'alliance pour la République ñu ñëw ndokkeel si la sa bés bi allahumma salli ala sayyidina asalaamaaleykum maa ngi leen ñëpp fekkoo ci gisal bi nag tamit Ablaye yooyu ngi ngi moom mbéte na ak Tafa jox sama borom ñu ma fekk ak ñu ma ànd ak ñëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañuy sant nag sa kanam ndax li kees di rëy rëy rëy kees commune bii moom rek moo fiy jigéen bu nu gis ci moom la ñuy daw di daw dañ naan daw daw ci moom rek la daw nag kii gisuñu fi keneen wala xam nga jàppale ko nag loole la nga def daaw ñun ñëpp ku fekk kon dañ la ci sant di la suñ ñëw tey bi nag li ko Assane bay waxee yi jigéen ñi ci lañ leen tànn la pour sargal sargal la ci sa liggéey ak ci ak ci sa jàppale ñi nag ñu ngi tàllal loxo ndax amuñu benn góor bu ñu jàppale te bëgg nañoo dem ndax nag bëgg na la jàppale Macky Sall waaye amuñu benn moyen yoruñu dara te nag léegi kese dara laqut yu bëy foo ni kaa ñaan la mu ne joxoon ma dara ndax looloo xew léegi bu njëkk sax la xewoon daa xew foo ni politique mu ne jox nañ la sama joxul duma dem te fekk joxuñu dara kon je ñi ngay talal loxo di ko talal ñi nga mom ak babacar fall ak sa morom nawle ya nga andal ñu jappale na nabu na bu jappale ndax na bakat ku ko jappale japp mu ñu ñëpp kon yalla yalla def japp ko rek la ñëw na ba salaamaaleykum maa di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu ki waral bés bi tey muy monsieur Abdoulaye Dieng di la féliciter di la wax jërëjëf ci action yi ngay def fii biir Thiès di nuyu sama xarit Mamadou Ndim di saluer aussi acte yu nombre yi ngay def fii biir Thiès ak jàppale bi nga ñuy jàppale fii biir Thiès rawatina ci jigéen ñi di sargal aussi sama mbokk jigéen ñi ñu àndal sëy bu jigéen jiite délégation bi ñëw teew fii tey ndax dañ naa nit buy sekk yow teraanga ak lu baax bu xewlee dañ ko ko war a wax gën koo fësal surtout nag rawatina boo ñëwee ba fu mu dëkk ci ay mbokkam ndax Ablaye dafa nekk ñun lii ay responsable nekk alliance pour la république depuis 2009 ba léegi ñu nekk sur le terrain di liggéey di soutenir son excellence le président de la république Macky Sall Ablaye ñëw fekk. liñ olof Njaay naan daañu daanu dajul suuf ñëw fekk côté bu xaw a sensible muy ci côté jigéen ñi Ablaye ñëw dugal foofu loxoom te demu ci ndànk da cay dem bu baax Ablaye jàppale di jàppale femmes yi ci ay financement bëggul kenn taxaw xoolul foo bokk ak foo bokk ndax fi ku ci nekk am na leader politique boo nekk mais Ablaye xoolul loolu dafa ñëw di épaulé ñëpp di jàppale ñëpp rawatina man mi président dama investir ci élection législative yi passé ci ñi ma njëkk a moom mi ci la bokk te bëggul sax ma koy wax ndax moom dafa bokk nit ñi nga xamante ni suñ la defalee teraanga duñ bëgg nga koy wax dafa moom ci ñi ma njëkk a moom ci la bokk financé aussi ay groupement de femmes ma am ñu ma ko booleen financé leen te bëggul sax ma toog fii di koy wax événement bu jot muy koor muy korité muy tabaski kon yaakaar naa ne jëf jooju ngay def buñ ñëwee fii war nañ koo seedeel sa mbokk yi nga nekkal xam naa ne ci ñoom nga ko njëkkee soog a ñëw ci ñuy du ñu guddal nag ndax liñ ci waroon yëpp ñëpp wax nañ ko ñuy ñaan yàlla rek mu soñu ci seytaane ba li ñu sumb ñu àggale ko ndax da nga nekk ci la bonne voie maanaam mooy li président bëgg mooy ñu massifier parti bi def aussi comme ni ma waxee 2018 bi muy année sociale yaa ngi ci déjà xam nga ne doomu aadama boobu amul wér gu yaram rek daraam du mën a dox tey nga def consultation gratuite loolu ñu koy saluer képp ku ku am jàngoro boo xamante ne xëy na mun nga koo xam ne xëy na xaalis bi nga ñu war a def pour faj ko amoo ko tey nga yombalal leen ko ubbi leen bunt yi ñu ñëw faj ko yaakaar naa ne loolu jaamu yàlla gën a loolu macha allah ñu ñaan suñu borom lépp loo ci wut mu defal la ko mu nekk jëriñu Cees waa yëpp wax yàlla yow iya, ak ni ngay taxawé ñu bari bu taxawa bu ñu amoon taxaway ya, bi rek macha allah liggéey bi ya, dina gëna yobbu 2019 macha allah ñu leen sant di leen gërëm ci merci assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di nuyu ku nekk tudam ak santam di jital ci nuyu bi nak sama xarit sama collègue président de Siggi jot na Cheikh Ablaye Dieye moom vraiment ku bax la sama rakk la mais c'est un homme intègre, donc engagé, un modèle extrêmement engagé dans le social et qui fait vraiment des actions nobles que nous, que nous avons saluées. vraiment bi ngeen dugg see man dama xaw a tiit tuuti sax dama xaw a yëngatu dama ne ah dama jigéen ñëpp ànd nañoo ànd nañoo doole mais li ci jiital ci nuyu bi nag suñu président seen Ndege moom sama xarit la ku baax la ku bëgg président la. engagé ci ci liggéeyam am ci nuyu bu baax di nuyu Pat aussi nuyu aussi jigéen ñi wax ñëpp ah vraiment Marème sila Diop sila maa ngi koy nuyu bu baax moom la naan kër aussi benn événement bu amoon. nuyu madame Mar maa ngi koy dégg léegi mu wax wax ju rafet gi ci président Dieye ah moom vraiment xam naa ne ku la bëgg ku engagé la aussi ci femme di nuyu aussi sama jigéen bu baax bële madame Khadija Diop mi jël kaddu sànq au nom des femmes.

dimbali jigéen ñi dimbali xale yi agir sur l'action sociale te loolu it nag xaaluñ ci président dañoo jël li ñu am yépp ñun ci nekk li ngay liggéey di jël ci sa xaalis boo xam ne xëy nekkoo ci état bi mais di ci dagg li nga mën dàqoo ci ak sa njaboot pour jàppale président fii ci Thiès jàppale waa Thiès parce que Thiès fi lañ dëkk fi lañ màgg fi lañ jàng te lu Thiès am lu ñu am def ko Thiès moo ñu ko gën kon nag Ablaye tey bi nga jógee def une journée de consultation médicale une consultation ORL pour ramener beaucoup de femmes beaucoup de jeunes amener ci lunettes ba sama femme ba e-, école de formation yima jël ci euh, euh, école du cours l'a di si mais ma fa dama jaar ci école bi fekkuma la fa man damay ba sa pour témoigner reconnaissance sama vraiment mes remerciements ak samay encouragement ci action bi ngeen def ah loolu nag maa ngi remercier aussi jëm fekk ñëpp vraiment doyen de Pamecas nga xam ne jël na fi kàddu sànq doyen bi jël kàddu léegi aussi il a dit d'excellentes paroles yoo xam ne ñëpp nawul nañ ko vraiment loolu moo doon suñu suñu tànk tey dina xamal daal di ñun ñu ngi ci gannaaw président ñu ngi booloo aussi di fas yéene di leen xaar ci seen bëgg-bëgg ñu ci mën rek te yëg ko dañ ci dugal suñu loxo ba ngeen ñëpp ànd ci nag ak Ablaye ànd ci ak Babacar Fall ak ànd ci nit ñu baax ñëpp mouvement yi nga xam ñoo àndandoo ak ñun ci loolu kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay bi ak merci waaye tey ñun ñëpp ñu ngi ci benn te loolu mooy di rafet mooy ak cere yi naka guddi lañu waroon a sant yàlla jamono naqari woon na torop waaye tey jamono neex na yéen da ngeen a fekk lépp sotti waajur yi defar lépp ñaan ñaan nit ñu baax tëdd ci réew mi li fi des bari na lenn rekk ci manqué mooy joxante la ak yaatu jaatante yi dënn xol yi ubbente bu xol yi ubbikoo rek ñu yéenante jàmm rek lu ñu bëgg dinañ ko am loolu nag problème la cees problème majeur la cees li ci Macky Sall rek problème yi yàgg na depuis seen ba tey mi ngi koñ bii nga dëkk Seynab Mar mii moom a mag xam na li may wax Adja Faat Baro fi la dëkkoon kër Ada Senghor gii fi la woon politique bu ñuy wax politique diggante fii la kër Ada Senghor ak kër mère Ada ci diggante bii fi la woon politique léegi politique amul li fi am mooy jàppalante rek joxante loxo defar réew mi ci foofu la ñu toll kii yi ñu am ñu conservé ko donc su ñu demee ba Thiès mel nii président bu ñëw rek ni Thiès dañoo pànk dañoo mën a xuloo dañoo mën a xeex yaakaar naa ni président sax war naa am dégg-dégg que ni am na lu fi soppeeku te bi ngeen ñëwee la soppeeku parce que nag yàlla dafa boolewul nit ci moom ñaar mooy bari xam-xam lool bari alal bariwul ci ñu ko yàlla boole yàlla nag yéen dimbali na leen may leen wërsëg may leen xel xel mi mooy bi ngeen ñëwee da ngeen fee fekk ñi leen mag fekk ñi leen fi jiitu ngeen nangu joxanteek ñoom loxo won leen ni dara indiwuñu lu dul jàppale leen ngeen defar dëkk bi looloo tax mu yomb ci yéen bu ngeen defee woon neneen day metti rek tendance amul ci politique bu Thiès bii actuellement tendance daf daan am ñii taxaw fii ñii taxaw fële ngeen nekk mouvement de soutien ñu nekk parti jàmmaarloo ah. mais tey parti bi ñun ñëpp ànd lan moo xew président Ablaye Dieye mooy maye visite médicalisée ñun ñëpp ñu dem fa téyele ko woon président ak képp ku ko bëgg a dégg te ne ñu ngi ci ginnaaw ci loolu muy def ànd nañ ci mais loolu rek mooy liggéey bi te ñu fexe nag jëli feneen nañu jëli feneen dolli ci bu ñuy tourné rek ci sunu biir bu ma xuloog na bu njëgéen ñëw ànd ak yow bu ma xuloog yow dama ànd ak kii loolu yokkul suñuy point de nanu jox ci biir gaa yi lii ngay def nii am na foo xam ne bu fa yeggee fa ñu nekk ñooñu di ñëwul bët ku ñëw ànd ak yow ndax kenn moomu kenn ginaar du topp kenn kuy taxan di bàyyi kuy bojj te yow yaa ngi bojj ginaar yaa ngi lay wër kon gën gi dee ko toxal maanaam fii bu ma yàgg fële dama yóbbu fépp yaram sa gën gi ànd ak sa staff di ko taaj di ko dëgg pepp bi nit ñi di ci fam di ñëw ci yow loolu rek lañu bëgg bëgguñu leneen kon nag ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant li ngay def ñëpp xam nañ ko ñëpp a ngi xam li ngay def action bi ngay def lu manqué woon Thiès la waaye yàlla dimbali nañu ba yaa ngi ànd ak Mamadou Ndiaye ak Babacar Fall am ñeneen ñu ñëw ci dëkk bi waaye fekk na yéen ngeen wone la voix d'abord. yéen l'unité aussi. wan ngeen wane ngeen la voix parce que yéen a ngi ànd avec unité. yéen a ngi ànd avec abnégation avec volonté et courage. Macky Sall ku na moom da ngay am courage de. ndax fit la yor te bariwul di wax. Macky Sall man je fais partie des membres fondateurs de l'APR. juróom-ñaar la woon juróom-ñaar jigéen ñi defe naa ne de kii moo fi ne ci saal bi umu njàcc mais. Seynabou man mii Ndeye Soukay Raba Deb màgget Diop juróom-ñaar la ñu woon bariwul woon waaye jàmbaar ji bariwul li wax de waaye ku am fulla la coow lii lépp dara yëngalu ko ci te nag ku am ku mel ni yéen sax na xaw ma lu kii yéen kenn ku ànd ak yéen ku amul lu muy ragal ay xale ngeen xam ngeen fi ngeen jëm li ngeen bëgg xam ngeen ko kon nag dóor mu daanu rek ñun seen i jigéen ñu nekk ci seen ginnaaw Seynabou jërëjëf ñepp gërëm nañ la sant nañ la def nañu unité ci sa ginaaw dañoo bëgg ñi gën yi ñi seeni jigen ngeen ñew ci liñu sumu nak parce que dañuy def ay tour di gisante di demalante ci xawi na ngeen ñew fekk ci ko parce que unité bobu rek la rechercher ci ginnaaw sëy pour Macky Sall gagné salaam merci Fama Ablaye ma sama nata bay bayaaraay dirim ma ngor a yaay Maymuna Njaay aja yaay Maymuna sa yaay ja yar na la yaayam a ko yar te baayam da koo gërëm atam ya néew na waaye sa yéene day na jees kaay waaye Ablaay màgg na gone bay xaal ga màgg na Ablaay wàññi woo dangaa yokk li la réew mi jariñ taxul nga fàtte njariñu réew mi yow réew mi jàngal na la réew mi yar na la fay nga bor bi jariñ sa réew ku nekk fa nga whatever sérieusement waru gar la fongal sa réew naw sa réew sàmmal sa réew xam sa réew Sénégal ay li mu soxla doom ñu xam xarañ bëgg réew mi jëf ju wér rek kay li ñu war suñu réew soxla wuti wax jëf ju wér rek kay li ñu war suñu réew soxla wuti wax ndaw ñi dëkk réew mi ñi te war a wees li mën a jariñ réew mi Mamadou Gningue yaa baax rek sa rakk jariñoo woon réew mi te bañ koo jariñ jariñoo réew mi te mosoo koo jariñ du ngor bokkul ci cynisme takkal leen laxas mooy réew mi soxla ne doomam jariñ ko président Sall boo tëddee ne la wal Ablaye Magana te ànd naa magam de liggéey président Sall ñaari boo tëddee la wal Ablaye Dieng Magana taay magama ko jiital leer na ma ñi ngi kon saagi ba nga baaxee yàgg nga intellectuel bi l'orateur nous a toujours séduit sëy na bu njegeen ànd naa ak yéen ñi Abdoulaye Thiès d'accord na Ablaye yàkkamti woo te yeeru woo Ablaye yàkkamti woo te

sëyit tey kaddu dafa rafet waaye kaddu defar na kaddu jàngale na kaddu éduqué la vraiment lu lay remercier bu baax parce que gis naa ni tey fépp ku lu tax suñ si Macky Sall rek fu mu taxawee du ko yëkkati ci kaw donc lii lépp ngay def c'est parce que président Macky Sall nga bëgg parce que Thiès nga bëgg donc di président di ñëw moom rek a sañoon é taxaw taxaw way président waaw ah, léegi moo ko confirmé donc nag ñu nuyu ñëpp mais aussi di leen wax ni dama am mbégte d' abord man sax mënatuma wax li ma waroon sama xol moo fees parce que lii tey bu la ay nit euh, ay kilifa bàyyi seen yitte yëpp ñëw mënoon ngeen yem sa école ba mais kat ñëw nañ mais fekk ñu ne fa dem nañ dangeen ngeen dagg seen yitte yëpp ñëw ba sama kër loolu tey sag la ci man aussi surprise la ci man surtout sama frère bi Nourou ñu ngi directeur général Uditocom tey li ma defal dafa dafa rëy dafa wane ni rek e, jàpp gi ma jàpp waaw e, nit ku simple nit ku modeste vraiment li moo tax ma ak moom ñu ànd ak Babacar Fall c'est pas le hasard c'est pas peut dañoo bokk ay jikko bokk ay gëm-gëm bokk

te loolu lépp rek day wane sa engagement ak sa détermination ba nga amoon démb ba léegi moo fi nekk ngir taxaw ngir ngir taxaw ko jigéen ñi ngir taxaw ko ndaw Thiès donc tey fii kenn mënul lim Thiès ñi fiy def lu baax kenn mënul Thiès yi ci ñi fi nekk fat acteur de développement su le plan de l'éducation le plan social te kenn du la ci lim donc tey eh, sànq ah, ah, ah, am na ko wax eh, éducation sa femme madame Diop di ko wax ñun dañ koy firnaal dañ koy firndeel li ngay def si éducation am na ay jeunes yu bëri yoo xamante ni tey eh, bu ñu demee ba def ay études supérieures yow yaa tax te xooloo ci kenn da nga leen di jël d'une manière gratuite te jàngale gratuitement amul fenn Sénégal dul boo demee si boo demee si école publique vraiment ñu ngi lay ñaanal di wax ni sa frère kontaan na si yow euh, dëgg naa si yow te li ñu sumb ngir Thiès mën a euh, mën a fédéré nekk dans un cadre unitaire pour que loolu lépp dañ koo def horizon 2019 bu ne gens bu bu ñu defee nii dañoo jël suñuy mouvement ko non dañu lii moo rafet. xam nga rek lii tey ñu foto ko rek wane ko rek. rafet na mooy ñëpp ànd. parce que ànd mooy doole. donc loolu vraiment ñoom ñu ngi koy doxal ak sama frère le président Babacar Fall ñu koy doxal bu sincère la. moom c'est parce que. c'est parce que li ñuy def lan moo tax ñu mën a ànd ba léegi nii c'est parce que dafa sincère dañ naan ay kuy duñu bokk mbalka mais kuy yii de dañoo booloo ak àndandoo moo tax ñu mën a bokk donc vraiment jigéen ñi di remercier la di di di wax ko aussi dama am vraiment contentement si yéen les femmes de la paix ñu di ay jigéen ñu brave di ay jigéen ñoo xamante ne amuñu barrière fet fépp fu leader nekk rek dañ leen seeti la waxtaan ak yow que yéen a yor euh, euh, euh, le rôle a ko yor te yéen a ngi koy dox te loolu dama si jiital d' abord la PCA Sédhiou Jigéen

donc loolu je pense que bu ñëpp booloo àndandoo nekk benn rek loolu loolu mën a am donc di leen remercier ci seen disponibilité bi ngeen am tey ñëpp xamante ni koor la am ngeen euh, ay yitte dem defar di di ndox mais da ngeen bàyyi lépp def seen délégation bi fort donc délégation bi donc tey femme APR yëpp yëpp ngi fi.

tey kenn du kenn duñu mën a jaxase parce que affaire bi dafa sensible tey nit ñi dañ taxaw fee kii si Ablaye Dieye la bokk kii si Mamadou Dieng la bokk lu am solo ñun ñëpp benn bokk-bokk lañu am benn bëgg-bëgg lañu am

Euh, si opposition ak ñi nga xamanteni ni dañoo mer man de loolu mooy sama rôle loolu laay def chaque jour suba ngoon pour mën a dooleel la pacification du camp présidentiel parce que comme moom la ñuy jàppale moom la ñu gëm te gëm nañ ni président Macky Sall la tendance va se renverser en 2019 parce que duñ ci bàyyi duñ ci tay te nag lépp nag rek mooy répondre aux préoccupations des populations c'est très important mën nañu toog di réunion di wax ainsi de suite mais dañuy dem ci askan bi di leen jege di leen jox ay espoir di leen dimbali. donc tey journée bi de consultation médicale gratuite bi ma def. donc c'est un impact social bi nga xamante ni tay day wane ni ñu ngi traduire en nag la vision du président Macky Sall et président Macky Sall bu décrété année 2018 comme année sociale donc su nekkoon na ci mën jouer sa partition donc tay même bu dul lii yeneen nag yeneen yoo xamante ni ñun ñu ngi koy bëgg dans le cadre doomu Thiès ak dans le cadre suñu d'autres partenaires yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak ñoom pour mën a renforcer ces actions ces actions sociales là boobu daal man vraiment kontaan naa jigéen bu APR xam ngeen ne am ngeen ci seen seen seen doom lépp lu ngeen xewle di dinañ si taxaw lépp lu ngeen am dañ ci teg suñu loxo comme nañ ko doon defee parce que on le fait spontanément def ñu ko def ñu ko avec des conditions dañoo ñëw pour dooleel nag boo ñëwee dooleel dangay ngay jëw ci li nga yor nga dooleel ko ndax eh, eh, li ñu jëm mën see am ndam ndam li lépp mooy ndamu président Macky Sall mais aussi mooy ndam bu Sénégal. Mhm. donc maa ngi profité ci ñëpp di leen baalu àq suñu eh, di leen baalu àq suñu bi wax leen ni daal vraiment kontaan naa soxna soxna Maguette vraiment maa ngi lay remercier si si si yëg-yëg si engagement envers envers ma madame personne bu baax nga donc lépp loo xewlee di nga ñu wo di nga ñu jégal sànq rek la la recevoir le ministre Maguette Seye qui était présent def aussi ay témoignages yu baax te boo témoignage bi ma yëpp moom dem ma ni dem na ba ne ma dama laa sas rôle de fédérateur. ngay demal si nit ñi parce que yow niñ ko gis nii kay kay ngay doxale moo war a boole ñëpp. man ko dëkkat man looloo tax mu ñëw ñu booloo. ah àndandoo jox nit ñi cër. parce que nit da koy jik da jox cër. parce fii kenn moom fi kenn. du alal. du dara jar du dara mais yëg-yëg bi rek moom moom ngay jox nit ñi pour nit ñi doon mën a la taxaw. man loolu laa gis si président Macky Sall dafay yëg doo doo doomu aadama il est modeste. moi je l'ai une fois mais boo toogee moom da ngay xam ne kii nitu kese la nit ku mm-hmm. bëgg Sénégal. parce que nit euh, nit buy wax di waxee xol. c'est une prison de la république mais vous il y a des au Sénégal donc day waxi xol Il am humilité donc nous, aussi incarné par rapport au monde de donc vraiment content. de encore une fois je vous remercie je remercie encore mon frère nous vraiment content.